téléspectateur Equivox TV ñu am mbégte rek saa su nekk di jàkkaarloo ak yéen ci seen journal de l'arène ma ciy ànd nag sama góor gu ñaawul bii di Babacar Babacar nuyu naa la. ah sama rakk ji macha allah soxna Ami Diouf waa tey moom la nga zone macha allah kawe mais maa ngi lay fay. nekk. am naa jàmm maa ngi sant. Babacar tey nga rek dëkk bi des fois yu ma doon toppatoo rek. Mm. xam nga moo tax ma tardé mais man ma xam ne tardé ma mais des fois mm. li olof di rek waaw ah, jaam ak i pexe mais yàlla suñu borom bi ak i dogalam. noonu la voilà. voilà après rek ñu dem seetaani revue des titres daal di dellusiwaat ci plateau bi. asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah mardi 19 janvier 2021 dañuy ñëw ak yéen ci yëglekaay yi. suñu lamb la ñuy xëy doore ko mu mel ni ki yëglikaay bi du suñu lamb nag moom xëtam mu njëkk tey kam ca xëefasal mooy sëll bu ndaw Ama Baldé ma war a jongante ak Modou Lo le roi des arènes mel ni ki nag fi mu nekk ni daal Ama moom mu ngay daas di fanaanal di defar ay ngànnaayam ngir daal bu yeggee ca xare ba jàmmaarloo bu méttee métti muok Modou Lo ngir fas ci yéene jële ndam moo tax yëglikaay bi xëy ñu xamal ne daal Ama Baldé la ko dale ca salle de musculation yi Ama Baldé ma nga xam ne nii moom moo nga ca din ya ca Tivaouane Peulh salle ya ca fa nga xam ne moo de Pikine Ama fi mu nekk nii daal bàyyiwul fenn foo xam ne jàpp na ne bu fa yokkee dooleem wala mu dem fa di liggéey dina gën a mën a wone boppam buñ ca yeggee mel ni ki daal sunu làmb tey loolu la xëy tey andil ñu ko dina ko wax mu mel ni combat ba mu nar a bëre nag Ousmane juuf di animateur nekk ca RDV moom wala ca rajo Dunia la mu xëy di xam ne daal nee na ba Baldé ak Modou Lô moom jàpp na ne wàllum huis loo moom nee na dansé bu rëy rëy la maanaam daal daa jàpp ne loolu moom xalaat di ko def sax dum xel te dum xalaat Ousmane Diouf moo gisee loolu mel ni ki nag biram loo daal dib ensemble tamit xëy na wax jëmm nag ña doon xalaat naan buñ ko defee huis clos mën na am du baax ci Modou du ko arrangé biram moom nee na Modou fu mu mën a doon lamb ji ak fu a defee ci réew mi même bu doon buntu kër Ama a mbërëm mii di Modou moom pare na ngir bëre ak ka nga xam ne moo di Ama Baldé mel ni ki nag leneen loo xam ne yëglikaay bi xëy na tey fësal ko mu mel ne ki kii nga xam ne nii moo di Balla Gaye numéro 2 moom mu nga ca màkkatal mu karama ànd ak Aziz Ndiaye ak Baye Ndiaye yëglikaay ba nag nee na Balla dëgg daal maanaam mu ngay gën a belende boppam waaye itam nag di xalaat daal diggante ma ka nga xam ne moo di Bombardier noo xam ne ni daal buñ ca yeggee fa lay jaar ba génn ca sunu lamb xëy tey ñëw du ñu wax lu mel ni ki noonu ba tey bu ñu continuer ak sunu lamb beneen xale boo xam ne nii moom ca Parcelles Assainies la dëkk ñu koy wax Obali maanaam Ibou Ndiaye nekk ci li simple beeg faraat bi moom fi mu nekk nii daal ña mu bëgg a jàmmaar lool du ñenn kud wala boog du kenn kudul ka nga xam ne nii moo di Forza bu Fass wala ka nga xam ne nii moo di la ma nekk ca Mbuur la jàpp ne ñii moom ku ci lekkum avance daal bu keroogee moom jàpp na ne naa wax ci yow te itam moom Ibou Ndiaye daal la mu gis mooy pare na nag ngir defante ak ñooñu ba mu saf-saf beneen mbëru simple moo xam ne nii moom yëglikaay bi ne boo bëggee dégg dëgg day ba mu gëjee bëri ak léegi yàgg na lool muy ab Ablaye Ndiaye ma nga xam ne ni mooy doomi Robert dëkk ca Joal yëglikaay bi ne juróomi at yoo xam ne ni daal mu ngi ko toog bariwul maanaam cinquième année balance daal boo sàgg ne Ablaye ci lay dugg si yoo xam ne ni du ko bëri yëglikaay bi du suñu làmb moo xëy ñëw wax nu ko ka nga xam ne nii nag moom moo di ansaw tafaatin daal ñu koy wax ka nga xam ne nii moom moo di papa papa cuun papa daal la mu xëy xam ne daal ci li ko gën a marqué ca la nga xam ne nii moo di làmb ji wala bokk ci mbir tafaatin bokk na ci combat tafaatin ak Yékini Senior nee na lii daal dootu ko fàtte ba ilaa yawmi diini bés la boo xam ne nii wala combat la boo xam ne ni daal boo xam ne ne daal bu ko marqué la ca la nga xam ne nii moo di dundam ci làmb ji buñ fa jógee record la ñu xëy jëm record tamit la mu xëy def tey daal maanaam école de fa Fadam la xool juróomi at yi nga xam ne moom la ñu génne boo fa demee nag kan fay fekk mooy guy gi tête de file ni ki nag yëglikaay bi jàpp na ne 67 victoire 69 défaite mel ni ki boo xoolee défaite ya moo ëpp la nga xam ne nii moo di victoire ya moo tax record jàpp ne daal maanaam école Mor Fadam moom dañoo wàcc de yëglikaay bi loolu la xëy wax mu mel ni ki nag ci moom am na ci benn moo tax yëglikaay bi jàpp ne ay mbiram itam dese naa dox de boo bëggee dégg dëgg ba tey yëglikaay ba mu ngi xamal ne boo xoolee réussite ba nag moom da nga ci sunu làmb xëy ñëw tey dinu wax wala boog record xëy ñëw dinu wax lu mel nekki noonu ba tey record moomu tamit dalal na ka nga xam ne ni moo fi nekkoon directeur technique national ci wàllum làmb ji di Abdou Badji Abdou nag moom ñëw na ca wàllu am ay kawoog yu mel ni ki noonu jàpp na ne kawo daal ngir moytu koog yu mel ni ki noonu bokk na ci yow sa taxawaay ak sa position ba nga xam ne moom ngay taxawee Abdou Badji loolu la xëy tey di ko wax kaw dëbu tamit jàpp na ne loolu moom amul ay yeneen yoo xam ne daal Abdou Badji ñëw na tey di ko leeral ci yëglikaay ba nga xam ne nii moom moo di record waaye loo ci mën a dégg moom xulle si a neex na te baax na itam nag ci ku sonn moo tax daal yéen ñi nga xam ne yéen a ngi nuy seetaan ak ñu déglu ku ci yebu daal garab gi ñuy wax si dem moom de ko jariñoo ndax am na solo xam naa saalum saalum yi lu ñàkk ñu xam ko ku mel ne hélas mële wala ami mii ma toogal loolu moo nekkoon revue des ñu daal di dooree ko ak journal suñu làmb ñu daal di ñëw nag ci Ama Baldé moom mi nga xam ne nag mi ngi def rek kéemtulaay kàttanam ngir rek a ki nga xam ne Modou mooy euh, Modou Lo Babacar mhm. kii di Ama Baldé nekk entre salle de musculation bu Pikine bi ak euh, dinu ti waa woon pël yi loolu lan nga ci mën wax waaw loolu de olof Njaay ko wax moo ne ku wal mburu tuddëb dëgg te loolu moo dal Ama ça veut dire que ah dafa am sas wu mu sasoo maanaam dafa yàgg doon rêve ci dundam bëri ak Modou Lo mhm. tey nag fi mu ñëwee baax maanaam mooy dafa ñëwee fi Modou Lo nekk roi des arènes ñu am combat mhm. defe naa combat bu toll noonu nag boo ko engagé te di xale am loo bëgg bëgg dégg roi des arènes ci fois mhm. defe naa ne nag ak lu mën a xew moom ah la ñuy olof di wax rek da xel di daas di fanaanal loolu moo ko dal moo tax tey salle de musculation yi du ko mën a bàyyi du mën a sori tamit din yi loolu lépp pour lan la pour jéem Euh, maanaam tàggat boppam nga xam ne su yégee ci bés bi ah ay supporter am wala ko bëgg bu sumeeku nañ xam ne seen mbër mi liggéey na loolu defe naa ne mm, parce que tamit làmb moom du kees buñ la kenn du la ko jox ngay tëddit nelaw millions yi na muy neexee noonu ngay jóge fajar yaa ngi dégg waaw di yokku cere di doole yaa yaa ko xam di dem ca foo xalaat ne daal boo fa duggee di nga am kattan ak doole force bu doy mm. di ko def defe naa ne kon defe naa li muy def fi mu nekk nii ci li ko war daal ci la nekk moom Ama de ba tey rek euh, ñuy des ci combat royal boobu kii di Ousmane Diouf di communicateur traditionnel daal di ñëw euh, ci loolu ne huis clos bi nga xam ne ñu ngi ko bëgg a organiser ci combat boobu noonu danger la pour la lutte yow loo ci xam. waaw père Ousmane kii moom suma papa la. Mhm. waaw sama papa la sama papa yu baax la bokk na ci ñoo xam ne mhm. tete nañ kër ci lii muy def mhm. ma di ko nuyu di ko ziar ci rajo Dunia. ci DTV RDV fépp fu ci ne rek daal jaar nañ fa man ak moom muy ku baax tey nag moom itam defe naa ne. voie autorisé la ci làmb parce que li tax mooy yàgg na ci yàgg na reporté mbër yi ngi ñuy wax yëpp ci làmb lañ ko fekk mhm. macha allah kon defe naa la mu wax ne buñ ko fa defee danger la euh, ci ko defee huis clos mhm. ah, waa loolu xalaatam la nit ku nekk da nga libre joxe sa avis ci mbir moo xam ne da ciy bokk mhm. mais nag loolu mu wax noonu mën nañ ko mën nañ ko xool ci beneen sens parce que man pour man danger wu huis clos bi daal man Babacar fenn laa ko mën a indee mooy ci public bi ci ñàkk ñëw rek man loolu mooy sama problème mais làmb jo moom wax dëgg yàlla bu amee public

xam nga la Lamine Samba doon wax ne mburu mi fii lay xoyom xoyom mi waaw waaye ñun itam mburu mi fii lay xoyom xoyom moom bàyyi kook mburoom rek comme moom su ay yëfam la hmm. moom na ñun ñun yoruñu mburu de yoruñu mburu non ñun Equivox la ñu rak Vox Arena loolu suñu grand frère moom moom mburu mi dëgg la na tàngal ba mu tàng voilà bu ñu jógee foofu rek ñu dem ci kii di Obali moom nag fi mu nekk ni poids lourd yi lay wër ndaxte nag nee na pare na pour euh, kii nga xam ne moo di Forza ak Pakala ñooñu daal la bëgg a dégg. waaw loolu day defe naa ne bu bu bu bu bu su su paree ngir defante ak ñoom. Mhm. ah yoon la dafa bëgg a bëre parce que itam ñooñu xaw nañ ko jiitu ci làmb dóor. <laughs> mais tey defe naa ne am na droit sampal leen dan bëre ak ñoom loolu la bëgg loolu nag defe naa ne mooy mooy làmb. Mhm. te itam garab ci kaw lay fekkantee rek. Mhm. loolu mooy li nga xam ne nii daal moo ci nekk yaakaar naa ne waaw. voilà kii di euh, Birame ñi ngi moom tam di manager roi des arènes Modou Lo moom nag fi nekk nii wóolu na mbëram ndax nee na moom Modou Lo mën na bëre fu nekk waaw mooy mooy li ma la waxoon ci Ama moo dal Modou rek ñoom ñaar fi mu ne nii foo leen tëggal ñu bëri mm-hmm. waaye comme dafa am ñuy xalaat naan est-ce que huis clos bi dina arrangé xam naa mu xëy tontu xamal ne daal fi mu nekk nii moom mm-hmm. huis clos baak ñàkk huis clos fu ñu tëgg combat bi mm-hmm. maanaam moom dana bëre te defe naa itam nag loolu moom la olof naan ku lekk avance tëdd pom waaw voilà ñu ñëw ci ki nga xam ne nag euh, moo di euh, Bombardier moom réaliser ne une meilleure fin de carrière. Mm-hmm. Balla Gaye de Blinde à la Mecque moom la fi nekk nii mu ngay wéyal rek ay ñaanam foofu noonu ca Màkkatal ko waxee xam nga suñu xel day dem ci Nabi Moustapha sallallahu alayhi wa sallam ki gën ñëpp mhm. tey mu nekk fa moom Balla Gaye euh, ah, na trop ah, lii moom defe naa lu la mhm. parce que bu ngeen demee ci Equivox TV sax di ngeen fa gis mhm. benn ay euh, kii boo xam ne nii ci wàllu sport lay yëngatoo yooyu ba yaakaar naa sax man ci li nangoo ci lamañu Aziz mooy ni ñooñu dañuy def fusion ak école Balla Gaye benn central bu nekk ca maa def wàllu basket wàllu football yépp lu jëm ci sport nage yooyu ak sax bëre kon moo lay wan ne daal itam ah loolu lépp yokkute la rek parce que lépp day gën a wane Sénégal et day gën a wane que ni mbir yi tamit am na cir bu ñu am muy loo xam ne lu am am solo la waaye nag lu mu liggéey du doy moom Balla ndax Bombardier la amal affaire waaye Bombardier lu mu liggéey du doy ndax Balla la amal affaire te daa am fu ñu jaaroon voilà ñu ñëw ci ki nga xam ne moo di Papa Thioune nekk nag agent de Tafatine moom nag nee na combat Yékini ak euh, Tafatine moo ko gën a marqué. Yékini junior waaw wax na dëgg waaw parce que li tax mooy tafaatin combat boobu la mujj a bëre. Mhm. keroog defe ne mu ngi ko bëree woon fa nga xam mooy Amadou Bari waa Leewtoo production ñoo ko tëggoon. Mhm. mooy bu ma nee Leewtoo production balaa may rom fa mu nuyu Pape Thialis Faye sama ancien DG boobu maa ngi koy bëgg di wax moom defe na ñu bëri ndax la ca am mhm. mooy euh, euh, Amadou Bari fees na bi ci des mooy combat ba xeex nañu xeex bu métti bëri bëri bu métti tafatin daal ko jëli bu rëy defe naa kon hélas cuun moomu wala boog papa cuun moomu nga xam tey moom moo yor tafatin di ensemble mhm. combat boobu dina bokk ci li koy marqué parce que itam am na bés yoo xam ne doo ko fàtte mukk ci sa mhm. dund quoi dëgg la mhm. kii di Ablaye Ndiaye moom ginnaaw ba mu bëree ak ki nga xam ne moo di Gris ca ba léegi cinq saison ngi nii ba léegi bëreewul waa Gris 2 la mujjee bëreel boo xoolee muy juróomi at booba ak tey bëreewaatul moo tax ñu koy xalaatal ay année blanche yu ne nag taglante année blanche yu li ci metti waa làmb wala mooy que dañ ko gisoon mu ñëw ñëw bu doy waar nit ñi xalaat ne kii mooy jël place Yoxi Jóob Yékini mu nekk xale bu mën a bëree masha Allah am public lit simple bi bu ñëwee ñëpp dañ koy xaar lit avec boo ko joxee combat defe naa la tax mu teel a bëri Demba Diop bokk na ci mbooloo mu bëri bi muy bëri ak Gris 2 mhm. kere Gris 2 mënu ko battre ci ay supporters kon moo lay wan ne xale bu ñu bu nit lu àllam bu doon xaar la mais nag olof a koy wax rek mhm. bu yoon jeexul su lu jeex amoon na ay gàllankoor xëy na ñu ngi koy ñaanal yàlla mu jógee ci ak jàmm pour mën a revenir at ñëw ci la ba tey yaakaar naa ne wërsëgam koy nuyu di profité di nuyu waa Joal Fadiouth yëpp ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp mhm. voilà Babacar ci cinq ci ki nga xam ne moo di guy gi ak écrém am ci 67 victoires ak 69 défaites ki nga xam ne tamit moo nekk ci bopp euh, écurie boobu di guy gi am benn victoire ak deux défaites waaw muy loo xam ne daal école Mor Fadam la boo ko déggee fa guy gi ne tey nag moom la yàlla dogal mën nañ ne moom mooy tëdd fil bi mm-hmm. par rapport ak fi mu nekk ci niveau lamb yaakaar naa bu ñu leen xoolee topp leen ci cinq saisons ñoo am ci soixante sept victoire soixante neuf défaites ça veut dire kon mm-hmm. ah dafay mel ni défaites yi moo ëpp waaw donte combat yi bëri na yaakaar naa loolu nag wàcc la ko yëglikaay bi tudde waaye itam defe naa ne war nañu am nañu fu ñu war a amee satisfaction mooy ci côté nombre de combat li ñu bëree bëri na mais nag ci côté ndam yi xëy na xaw na euh, dafa di xaw na ko yóbbu tuuti loolu nag li leen di dimbilaat rek mooy ñu gën a liggéey guy gi nag ci biir loolu moom buñ ko toppee trois combats la ci jot bëre am ci benn victoire ak ñaari defet muy loo xam ne itam defe naa ne dina ko gën war a mën a tax tey moom mu gën a takkuwaat mook ñi mun bokkal école ba parce que yaakaar naa ne ka fondé école ba muy form mor form yàlla na ko yàlla yërëm xare ko aljana ah tey bu leen fi bàyyee def naa ne ñoom ñi ko téye dinañ fexe ba lu def la tout daal ba li ci seen kanam ñu fexe gën a defaru pour que gën a wàññi defet donte sport ak defet ñoo ànd quoi dëgg la mhm. ñuy ñëw nag ci li nga xam ne moo di kawoo muy luy faral di am làmb nag dañu war ko mën a éviter mhm. kii di Abdou Badji ancien directeur technique national mhm. ne pour éviter le kawoo bu baax pour éviter lii di kawoo voilà pour la nga daan da ngay jéem a am taxawaay bu baax boo xam ne bu ñu la dóoree bu dee gauche lañ la dóor wala droite doo mën a daan Abdou Badji moom c'est le directeur technique national yaakaar naa yàgg na fa macha allah ñu koy nuyu joolaa jaamu séeréer ah du noonu la demee ah du ma ko nangu <laughs> ah, joolaa duñ jaamu séeréer bañ naa yow séeréer nga di ah, ñooy jaam yi ah yow da nga bëgg a nekk jaamu joolaa non man de joolaa c'est entre séeréer tuk la man may seen buur séeréer ak tukulóor yëpp laa maa ci boole tukulóor yi maa seen buur. kon neex dafa leer <laughs> bu ñu fayoo bu la metti <laughs> Abdou Barsi waaw naa wax tamit ah kii ko wax borom xam-xam la ah. taxawaay ci bëree moom am na nu ñu koy defee mm-hmm. ba nga xam ne tey dóor mu daanu mën nga ko moytu parce que dóor mu daanu dafa xaw a doy waar des fois mu am ci làmb mais am na noo xam ne boo di taxawee mm-hmm. saa bu ñu la dóoree mm-hmm. mën nga perdre équilibre te boo ko perdre mën nga daanu quoi. voilà Babacar dafa mel ni ndar képp nag de ah. waaw ndar kepp ndar kepp xam nga ndar kepp dafa leer ndar kepp da ci yoote laa ko daan gis jeex na xam nga yoote <laughs> voilà chers téléspectateurs fii la ñuy yem ak yéen nag ci journal de l'arène Babacar lan mooy sa dernier mot waaw santaat yàlla rek julli ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñaan jàmm Sénégal yàlla def ko ci àddina bi tamit di ko ñaanal képp koo xam ne yaa ngi ñuy suivre rek parce que fu mu mënti nekk rek ñi seetaan pour man ñoom ñooy suñu ay chef que ñooy jënd connexion di ñu bàyyi xel di ñu encourager di ñu critiquer ngir ñu gën a defar toogaay yi loolu lépp c'était pour lan la pour affaire kon ñoom amuñu seen fay Boy jàmm yow tamit di la nuyu bu baax baax di la ñaanal jàmm di la wax ne macha allah daal mhm. ah yàlla na yàlla defal jàmm daal lafal la cant <laughs> comme ni ko ñëpp <laughs> xawee voilà di leen di jaajëfal rek yéen ñi safoo Equivox TV di leen jox dig daje nag ëllëg incha allah incha allah